seydina muhammadin wal ali wa saxbihi dawi nawalil waali wa radiyallahu an sheykhina wa wasilatina ahmad ibni muhammad ibni habibillah xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa saxbihi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi teew ci jotaay bi di jàkkaarloo sunu jëmm wala ñi ñuy topp ci jumtuwaayu xarale yi fu ngeen mën a nekk ñu ngi yëkkati juróomi baat yooyu di leen ko nuyoo di dellu siwaat di leen ndokkeel ci weeru màgg wu tedd wi nga xam ne ñu ngi ci waaye bis bu màgg bu sell bi nga xam ne ci biir la nekk te mooy bis ba ñu taxawaloon badar doon xeexal lislaam ngir mu taxaw bañ jot ci ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax di ci ndokkeel jullit ñépp ni ñu baaxoo ànd ci jotaay yi ñuy amal ba weer wi tàmbalee ba fi ñu tollu te fas yéene ko wéyal ba mu jeex itam incha allah moo di jotaayi xam-xam yoo xamante ne ay yoon ñi fi jaar jaar nañ fi ci ay tomb yu wuute waaye ci anam miinu jàngalin wu wuute itam loolu daairatu muxaddamatul xidma bi nga xam ne mooy saytu jotaay yi moo ko tënkee noonu tëralee ko noonu itam muy séddale jotaay yi ñuy def ci biir koor gi séddale ko ci ay ñetti fànn ñetti fànn jàngaliin ndax ay jàngale la waaye am jàngaliin itam daa am ay anam yoo xam ne mënees na cee jaar ngir jàngale xam ngeen ne am na ñoo xamante ne bu ñëwee dañuy def yu ñu ay waxtaan waxtaan yoo xamante ne day mel ne uh, dañ koy dañuy waajal ab tomb ab thème boo xam ne bu gën a général la boo xam ne day laal ci lu mel ni société bi nga xam ne li ñuy dund ci lay ñëw di ci di ci waxtaan bu ko defee def ci ay jàngat yu xóot ngir wan nit ña fañ ci war a taxawee ci seen wàllu diine boobu benn anam la ci yi ñu tëral fa seeni muy ci jotaay yi am beneen anam boo xamante ne day mel ne dañuy gàggante nit ñi ci li ñu xamul ci seen diine mooy di leen ubbee nga xam ne nit ki day laaj ab laajam boroom xam-xam ñëw toog fii di ko tontu muy ay laaj ak ay tontu loolu itam aw xeetu jàngaleen la ndax nit ki kiy laaj bu laajee ko xam mu xamal ko jàngal na ko ñetteelu anam bi te suñu jotaayu tey bii ci lay dugg mooy nag loo xam ne dañuy tànd benn ci bind yi nga xamante ne ay bind yi fiq lay nekk mooy ni nit ki war a jaamu boroomam fiq moo tënk lépp loo xamante ne ci mooy jëfi jaam bi jëf lu muy jëf rek ci biir fiq googu la tënku tey kon dañuy jël ab bind boo xamante ne kiy jàngale tey du def waxtaan du loo xamante ne day nekk thème boo xam ne da koy jël ci société bi ngir jàngat ko def ci ay analyse du tontu ay laaj ndax du jotaay tontonte ay laaj waaye day indi ab leçon maanaam day jàngale jël benn bunt ci bunt yi nga xamante ne fiq la mu jàngale ko bunt bi ñu jàng tey ci wàllu fiq dafa séddale ko ñaari xaaj xam ngeen ko mooy fiqhul ibaadaat ak fiqhul muamalaat fiqhul ibaadaat moo ñuy jàngal nu ñuy jullee nu ñuy wooree nu ñu ajee màkka nan la ñuy nattee azaka ak ya ca aju yi nga xamante ne suñu diggante la ak suñu ak suñu boroom mooy jaamu yàlla gu mel noonu loolu lu ñu jëf la ak lu ñuy wax beneen pàcc bi ci fiq mooy biy jàngale nan la nit ki di jëflanteeg moroomi jaamam yi mu siqal dund gi moroomi jaamam yi jëflante boobu loolu la ñu woy fiqhul muamalat bind bi ñu jàng tey foofu lay dugg dafa aju ci li ñuy woowe fiqhul muamalat nan la nit ñi di jëflante ci seen biir loola nan la ko lislaam jàngalee nan la yàlla mi leen sàkk bëgguñu ñu jëflantee ko ca loolu la sëñ Abdou bu Bousso alxaaji cheikhu di waxtaane tey sëñ Abdou Khadir fii la jàngee ci dëkk bi jàng li mu war a jàng lépp mokkal alxuraan bind ko jàng ci waajuram sëriñ Afiya Bousso al imam mi ngeen xam jàng ci moom ba jàng ci li ñuy jàng mboolem fiq fii dem Louga jàng fa door a génn réew mi njëkk muy génn jaar na fii ci Azhar bu ndaam bi mu fi jógee la dem Maroc gii ngeen xam jàng fa lam doon jàng nag dafa aju ci lii nga xamante ne mooy taxasu sam mooy moom ci lii la spécialisé wu moom la xam kon buñ ko ciy déglu buñ ko joxee nopp lam cay wax lu muy teg ci xam-xam la lu muy teg ci xam-xam la kon tey mi ngi ñuy jàngal bind boo xam ne dafa aju ci ay jëflante yu nit ñi di jëflante ci seen biir ci wàllu jënd ak jaay ndax nit day am alal alal ji mi am nag faw lislaam dane ko nii nga koy ame mu nekk amin wu dagan faw dañ la koy may wala nga dond ko wala ñu sarax la ko wala nga liggéey ko biir liggéey boobu nag saa yooyu liggéey rek la nga cay amee jënd ak jaay la dana wax nan la ñuy jëndante ak nan lañuy ñuy jaayantee loolu dana ci ñëw ci leeral bi kon tey bind bi mu jàngalee ci jënd ak jaay la ajo waaye bunt bu yaatu la mu tënk ca nag loo xam ne dana tax nit ñi mën koo gën a jàpp mooy day wax ay jëflante ci wàllu jënd ak jaay yoo xam ne lislaam da koo tere te nit ki koy def mën naa am xamu ko mu bëgg koo jàngale ngir ki ko daan def bàyyi ko xel xam ne lii jëflante bu ñu tere la ci wàllu jëflante ak jaay bu ñu sukkandiku ci sariya kon si Abdul Qadir ñu ngi lay ñaanal tawféex yàlla defal la ak fatxan mubiin ba li nga bëgg a leeral nga leeral ko ni nga ko bëgg a leerale ñi ngi koy jottali itam dégg ko ni nga ko war a déggee te jëfee ko yàlla fay la ci aw yiw fay leen ci ñoom ñu koy jëfe itam bismillah fal yatafaddal mashkura bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammad bin haadi al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alim al hakim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al jawad al karim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk yëpp di ziyaar ñëpp di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk waaye tamit di leen fetli suñu ndokkeel ak suñu ñaan ci bis yu sell yi ñu nekk jóge ci bis boo xam ne ñu ngi ci doon fàttaliku xare badar waaye it jëm ci bis yoo xam ne danañ ci faral di dàkk laylatul xadar nuyoo yi ak ñaan yi ak cant yi ak ndokkeel yi yépp nag ñu ciy jiital kilifa gu mag gi di cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul am di ko ñaanal suñu boroom mu yàggal ko wéral ko kàttanal ko tawféexal ko ba naal yim am ci e, murit gi ak ci dëkk bi yëpp ak ci àdduna bi yëpp suñu borom sottal ko moo ñi mu àndal liggéey bi yëpp waaye di la nuyu yow sëriñ Amdi di nuyu waa daayira Muxaddamatul Xidma yëpp nga xam ne kenn lañ ci ñoom suñu nuyoo nag ak suñu siyaar ñu koy dooree ci ki ko jiite nga xam ne mooy suñu kilifa jàpp naa ne comme ni ma koy waxee at mu jot rek saa yu ñu toogee fii di wax damay jàpp ne dañuy tari dañuy tari lenn calam ñu jàngaloon ginnaaw nag dañuy tari ñu ñuy déglu te lu nit ku am complex lu ñu juum rek mën nañoo fekk fi ñu toog daat koy jooyanti incha allah ni nga ko waxee sëriñ am di dunduk doomu aadama charian da koo noos ci ay anam yu baree bari am na ci lool day aju ci diggante nit ki ak boroomam loola àtte ya koy noos loolu la ñuy tuddee àttey jaamu yàlla fiqhul ibaadaat comme ni nga ko waxee léegi nit ñi ci seen jëflante ci seen biir moom it àtte ya koy noos bu dee lu aju ci sëy ak ya cay topp loolu la ñuy wax fiqhul muamalaat al usuriya wala ñu koy tuddee al axwaalu saxsiya mooy rek lu jëm ci wàllu famille bu dee lu jëm ci wàllu alal ni ñuy jaayanteek ni ñuy jëndanteeg luye bu ameek euh, société ak ya ca aju yépp ci wàllu jëflante ci wàllu alal loolu ñu tuddee al muamalat al maliya bu loolu jàllee fiq amaat na yeneen bunt yu aju ci àtte yu aju ci ay tooñ yu aju ci ay mawaaris ni ñu doon de nit ki ni ñuy séddalee alalam bu faatoo ila axiri yi waaye tey dañoo jël rek dañoo jukki rek benn bunt ci loo xam ne day wax ci jaay ak jënd comme ni ko sëñ Abdou Moustapha waxee léegi jaay ak jënd day bunt bu yaatu lool ci lislaam di bunt boo xam ne it bari na yu ci aju lool moo tax waa daayira bi gis ne war nañoo xool benn tomb bu aju ci jaay ak jënd boo xam ne dafay wax ci euh, yenn nit ci yu ñuy tere te nit ñi di ko def ci jaay ak jënd bu ko defee ñu fàtt fàttalante ci comme ni mu ko waxee it incha allah jotaay bi ab dars la ab bind la bu ñu jël moo tax xay na bu mën a compliqué euh, tom bi may njëkkee rek mooy jàng lu aji ci jaay ak jënd farata la ñu baree bari dañuy jàpp ne boo waree julli da ngaa war a jàng ni ngay jullee ni ngay jàppee boo waree woor dangaa war a xam faratay koor sunna ya lañ ca sopp lañ ca siip la koy yàq waaye nag boo dee jaay ak di jënd moom noo ko defee rek baax na déedéet jaay ak jënd atte la bu bokk ci atte lislaam waaye beruwut beru goo xam ne nit ki nu ko neex loolu la koy defee xam ngeen ni mu kàllaf mu ne day araam moom mu jëf jenn jëf ak jëf ju mën a doon te fekk xamu ca la ca lislaam àtte loolu sëñ bu mag bii moo ñu ko waxal boppam ba muy wax naan wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma xakama fiihi mutlaqan rabu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma kon boo munta jàng la ca la ca la lañ munta ñàkk ceew danga ko war a xam ak donte danga koy laaj moo tax mu naan wa fil kitaabi fasalu ahla dikar tuuba liman hamma bi ilmin da nazar ñu xam ne loolu ay wax la yoo xam ne da koo wax rek ci jaamu yàlla yëpp ak gu mën a doon da nga ko war a jàng njëkk nga koy def waaye jëmmi alal sax sëñ bi da koo beral ak tudd wax ne mooy bala nga ko wut euh, di di ko di ko dajale da war a jàng àtte yi ca aju loolu la doon wax naan wa baadu faalam anna xayra mashtagal fatan bihi ilmun wa diinullaahi jal man faatahu haadaani fi dunyaahu mushtagilan bilmaali an hudaahu fa maa lahu gadan diwal azaabi wa niqmatun wa niqmat wa niqmatullaahi bil artiyaabi kon ku fi ku topp àdduna rek ba xamoo li nga war a xam ëllëg mbugal rek nga ci jëlee ak alkande atte yooyu nag xam li aju ci jaay ak jënd am na solo lool boroom xam-xam yi bu ñu koy delloo ci cosaan dañ naan li koy liy wan ne farata la mooy xadis boobu wala asar boobu nga xam ne moom la amaroon ibn Xattaab waxoon ne laa yabi' fi suuqina illa man tafaqaha fi suñu marché bi kenn du fi toog di a jëndante njëkk ngay xam àtte yi ci aju moo tax imaam Malik radiyallahu anhu mii nga xam ne moom la ñu topp ak ngiram euh, daana digal buur yi mbokkaloon jamono di leen wax ñuy dajale commerçant yi ak jaaykat yi nga xam ne dañuy xëy ci marché bi bu ñu ñëwee mu leen di natt di xool ndax li ñuy jaay maîtriser nañ xam nañ àtte yi ci aju wala xamuñ ko comme gis ne xam nga ko mu bàyyi la nga continuer sam njaay waaye comme gis ne xamoo ko mu ne la laggal jàngi ba xam la ngay jaay la ci aju ci ay àtte ndax boo ko defut da nga lekk ribaa da nga lekk lu araam moo xam neex na la moo xam neexu la loolu it moo tax jamono bi muy dox dëgg-dëgg nit ñi daan àttewoo ci àttey lislaam xam nañ ne réew yi féete sowu daanañ am lu ñu tuddee muxtasib mooy rek koo xam ne day wër marché bi di xool ñi ngi jaay di leen nattu comme mu egg si ci sa place wala ci sa taabal laaj la ba xam li ngay jaaye xam nga àtte bi wala xamoo àtte bi boo xamee àtte yi mu bàyyi la nga continuer di jaay boo xamut àtte yi nag mu ne la demal jàngi ba xam soog a soog a continuer sa liggéey ndax boo ko defut da nga lekkloo nit ñi riba kon luy yëpp day wane ne xam lu àtte njaay am na solo lool ndax boo ko defut da nga euh, lekk riba baa nga lekkloo nit ñi riba jaay mu ñuy waxtaane nag mooy lan jaay ci baat bi ci luuxa bari na lu muy firi lool loolu taxuñoo jóg waaye dañ koy xam ne rek ci bu ko fiq waxee mooy lan bu ko fiq waxee boroom xam-xam yi jàng wàllu fiq xamle nañ ko ci ay anam yu wuute waaye bu ñu tënkoo ci masab imam Malik mën nañoo dellu ci xamle gi ko ibnu arafa xamle ñëpp xam nañ ne ibnu arafa mooy xamlekat bi gën a siiw ci xamlekatu mashabu imam Malik moom boo demee ca xuduut daf lay wax ne jaay accord la waxtaan ba juboo la joo xam ne ak joxalante moo koy lal aqdu muawada aqdu muawada la ko tudde nga xam ngeen accord yi waxtaan yi ba juboo dafa am ñaari xeet ci wàllu jëflante ci wàllu alal am na lu ñuy wax uqudu al muawadat am na lu ñuy wax uqudu tabarruat uqudul muawadat mooy jaay ak jënd li nga xam ne joxalante da ci am wala nga liggéeyal nit mu fay la nga xam ne daal moom lee loo joxe rek day am lu muy jàkkaarloo bu dee uquudu tabarruan nag mooy lu mel ne maye wala saraxe wala def waqfu wala yu mel noonu kon jokkalante la boo xam ne du aju ci njariñ du du nekk loo xam ne service lay nekk service ijaara la waaw bu fekkee da ngaa luye ab oto loolu du jaay waaye kiraa lañ koy tuddee wala ijaara bu fekkee ne da ngaa luye nit ab maçon mu lay liggéeyal wala boog koo xam ne daf lay dawalal oto wala yu mel noonu loolu ijaara la waaye dugg ci jaay dëgg-dëgg ci bu ñu waxee jaay ci maanaam mi gën a xat euh, mu teg ci ne suumukaaya sa jaay ak jënd bu ñu ko waxee saa yu ne ñi koy def kenn ku ci ne da ngay ci jéem a xool dangay xëcc jëmale ci sa bopp da ngay jéem a xool sa intérêt waaye mu ne jaay ak jënd foo ko fekk ñaar yi jàkkaarloo du nekk wurus ak xaalis boo joxee nit ki wurus mu jox la wurus loolu weccee lañ koy tudde waaye du tudd jaay loolu mooy échange bu fekkente ne dangaa jox nit xaalis mu jox la xaalis loolu tamit weccee lay tudd waaye tudd jaay jënd bu fekkee da nga koo jox or mu jox la xaalis loolu tamit ci sarf lay dugg ci échange lay dugg waaye dugg ci jaay ak jënd jaay ak jënd fii nag bi ñu wax mooy njaay moo xam ne marchandise mi day teew nga joxe ko wala boog piri bi day teew waaye bu fekkente ne dañ laa jox prix ngay xaar ba jëmmi jamono nga soog a joxe marchandise loolu ñoom fu ko dañ ko tuddee bayu waaye dañ ko tuddee salam waaw ci majalis yaakaar naa moom nañu daan tuddee salam le nag bokkut ak bayan kon dañuy gis ne bu ñu waxee jaay ci fiq dafay génne wàllu yooloo li ñu tuddee yooloo te mooy luye nit wala boog luye matériel day génne tamit wàllu sëy day génne wàllu échange weccee day génne ñoom li ñu daan tuddee muraata la muraatala la nga xam ne marchandise ngay joxe mu jox la marchandise moo xam ne dañ ko peese bu dee bu ñu ko peese wut ñoom moom lañu daan tuddee la waaye day génne li ñuy tuddee salam njaay moomu nag bari ay façon loolu buñ delloo ci téere bi ñuy wax mawaahibul jalil bu imaam xataab def sa doon ci saraa muxtasar xalil def nañu jaay mën nañ koo séddale ci ay anam yu baree bare kenn ku ci ne mën nga ko ak day day dépendre rek day sukkandiku rek ci bët bi nga koy xool bu ñuy xool ndax li ñuy jaayante ak li ñuy jëndante muy marchandise mi ak prix bi yépp mi ngi teew wala teewut bu fekkee ñoom ñaar ñépp teewuñu wala benn bi rek moo teew bi ci des teewut foofu mën nañ fee seetle jaay ñeenti xaaj bu fekkente ne njaay mi ak gàppal amu ci maanaam wutaluñ benn amut lenn lu ci am dele jox nga ko marchandise jox na la njëkk loolu la ñuy tuddee naq naqd mooy njaayum teew mu teew bu fekkente ne ñaar yëpp nag benn nekku fi da ne waxtaan ba juboo rek masalan dangaa yor oto may la jaay ko ci 5 millions waaye nag fii ak at laa lay fay yow nag bàyyi dama lay bàyyi it nga dawal oto bi fii ak juróomi weer kon gis nga da ngeen a waxtaan ba juboo rek waaye joxewoo prix moom tamit joxewut marchandise loolu la ñuy tuddee at daynu bi na loolu nag bari na ay xeet bari na ay façon bari na yu ca araam bu fekkente ne njëg gi lañ gàppal maanaam joxe nga marchandise waaye daf laa fayagut loolu la ñuy wax njaay mu am délai albayon ila ajal lañ ko tuddee wala ñu tuddee ko albayon mu ajjal wala ñu tuddee nga xam ne da ngay joxe marchandise mu teew mu teew waaye nag njëg gi moom da ngay xaar doo ci jotagul boo defee njëg gi ni mu la koy joxee mën na la koy def par ndànk-ndànk mën naa dem it bu jox la benn délai boo xam ne bu jotee da lay jox noonu njëg yëpp bu fekkente ne li ngay jaayante ak li ngay jëndante benn bi dafa nekk xaalis benn bi nekk or wurus wala ñoom ñaan ñëpp nekk bu boobaa mën nañu ko seetle ñetti xaaj loolu saa yoo xamee ne euh, wurus ak xaalis. ci diggante wurus ak xaalis ak wurus ak xaalis ci lañuy jëflante rek loolu boroom xam-xam yi dañu ko tuddee bay'ul ayni bil ayn waaw bu fekkente ne jëfandu jëfandiku jëflante wuñ ci xaalis waaye da ko jox marchandise mu jox la marchandise loolu la ñuy tuddee bay'ul ardi bil ard bu fekkente ne ko jox xaalis mu la jox marchandise loolu la ñuy tuddee bay'ul ardi bil ayn boo ko joxee or nag mu lay jox or wala nga ko jox xaalis mu lay jox xaalis wala nga ko jox xaalis mu lay jox or loolu am na ñetti xaaj am na ñetti xaaj bu fekkente ne ñaar yi dañoo wutee nga xam ne wurus nga koy jox mu jox la xaalis wala nga jox ko xaalis mu jox la wurus loolu day ci day tudd ci day dugg ci sarf mi ngi mel ne tey suñ jamono jii dañ naan bu fekkoon ne da koy jox euro mu lay jox CFA wala nga koy jox dollar mu lay jox dirham loolu sarfu lay tudd maanaam weccee lay tudd waaye dugg ci njaay weccee nag moom it dafa am ay àttee boppam bu fekkente ne li ngeen ko li ngeen joxante ci wurus sa xaalis dañ koo peese loolu la ñu tudde muraatala bu fekkee dañ koo wàññi joxe ko loolu la ñu tudde mubaadala bu fekkee li ñuy jaay moom it mën nañ koo seetle ci bu ñu xoolee ndax euh, kiy jënd gis na li muy jënd wala gisu ko bu fekkente ne gis na ko loolu la ñu tuddee bayul xaadir bu fekkee gisu ko loolu la ñu tuddee bayu gaayib wala bayul gaayib bu ñu xool ndax buñ bu buñ jëndante rek kenn ku ci ne da dem sa yoon choix amu bu fekkente ne choix amul deltu ginnaaw amut loolu la ñu tuddee bayon bayool bat bu fekkente ne nag danga ne ko jaay ma damay jënd waaye nag bu ma xoolee arrangé wu damay deltu ginnaaw loolu la ñu tuddee bayool xiyaar mooy njaay moo xam ne dafa am ak tànn bu fekkee li ngay jaay ak li ngay jëndante euh, da nga dañu dañuy xool prix bi nga ko jëndee woon yow mi koy jaay wala boo xooluñ ko moom it mën nañu cee mën nañ cee amaat ay façon njaay yu wute bu fekkente ne kiy jaay dafa ñëw ne la lii nangam laa ko jënde nangam la ma dikkee noonu lañ koy waxee fii ci wolof marchandise mi nang téléphone bi fukki junni la ma dikkee waaye nag bëgg naa ci ñaari junni muy fukki junni ñaar laa ko jaayee loolu la ñu tuddee bay'ul murabaha bu fekkee ne daf ne la fukki junni laa ko jëndee ku ma joxaat fukki junni ma jaay la ko loolu la ñu tuddee bayu tawliya bu fekkee daf ne la fukki junni laa ko jëndee waaye bu ma ci amee juróom-ñetti junni jël loolu la ñu tuddee bayul wadia kon gis ngeen attee njaay yi mën naa wuute lool ci ni xeeti njaay yi wuutee bu ñu xool ndax njaay mi wér na wala wérut tamit mën nañ koo seetle ci njaay mu wér ak njaay mu wérut li ñu tuddee bayon saxi al bayon saxi ak al bayon al kon loolu ci gàttal mooy xeeti njaay yi am ci gàttal léegi nag euh, fi ñuy dooree waxtaan wi mooy dañoo bëgg a xam le ne lii cosaan ci xeeti jëflante yépp ak xeeti aada yépp mooy dafa dagan moo tax suñu waxtaan wii ñu nar a waxtaane lenn ci ay xeeti njaay wala xeeti jëflante ci jaay ak jënd yu araam li ñu war a njëkk a xam mooy liy cosaan ci jëflante yi mooy ak dagan al aslu fil muamalat al xill kon bépp charte bu ñu chartante boo xam ne gisuñ texte bu koy araamal nañ jàpp ne charte boobu dagan na bépp accord bu ñu bépp contrat bu ñu jëflante te gisuñ lu koy araamal benn texte bu koy araamal texte bu leer bu sax nañ jàpp ne loola dagan na kon liy cosaan ci jëflante yépp mooy dagan loo ci gis ñu araamal ko rek dafa fekk ne dafa am illa ju tax ñu araamal ko illa yi tax ñu araamal nag bari na danañ ci ñëw léegi ci kanam incha allah tom bi ci tegee mooy njaay mu dagan ak njaay mu dëgganut lan moo leen wutale bu ñu demee ci téere bi ñu tudde al furuq bu al imaamul xaraafi nga xam ne dafay indi ay farq leen lu ci na mu wax la la ko teqaleeg leneen am na ca farq boo xam ne daf koo tudde al bay farqu bayna qaaidati maa bay bayuhu wa qaaidati maa laa yajuusu bayuhu mu ne li nga xam ne dagan naa jaay mooy lu dagana jaay bu ñu la ko waxee mooy loo xam ne juróomi sart yi daje na ci sart bi ci jiitu mooy na laab daane ndax yonente bi salaa salaam ñëw na ci saxiixul buxaari ak saxiixu muslim yonente bi ne yàllaa ko yonenteem araamal nañ jaay sàngara araamal nañ jaay médd araamal nañ jaay mbaam xuux araamal nañ jaay xërëm nee na saxaaba yi ne ko yow yonente yàlla bi ah ñun kat dañoo gis ne lu mel ne resu medd yi gaay yi dañ koy jël di ko peinturer seen gaal yi waaye di ko niitoo di ci def làmp yu leen di leeralal yonente bi ne leen yàlla rëbb na yahuud ya ndax dafa araamal ci ñoom res yi res yi mbaam xuux yi dafa araamal ci ñoom resi medd yi ñu wëlbatiku ñoom di ko jaay di lekk njëg loolu dafa am qaida fiqhiya buñ ci mën a balloo te mooy lépp loo xam ne araam na lekk léeg-léeg day araama jaay lu ci bare bari day araama jaay kon sart bi ci njëkk li nga mën a jaay mooy day laab li nga mën a jaay it day nekk loo xam ne lislaam day nangu ku ko jariñoo ku ko jariñoo léegi wala ku ko mën a jariñoo ji ëllëg li nga mën a jaay ñetteelu charte bi mooy day nekk loo xam ne man nga koo joxe waaw bu ñu la indi nga ne am li nga mën a jaay charte bu ñeenteel bi mooy day nekk loo xam ne yën ñaan ñëpp xam ngeen ko yow miy jaay xam nga li liy jóge ci sa loxo ak li war a delsi ci sa loxo moom mi jënd it xam na njëg gi mi génne ak marchandise mi war a dugg ci loxoom juróomeelu charte bi mooy na ngeen ko moom lii nag ci fiqhu Maalik dañ naan charte la fil jawaaz wallu luzum loolu mooy lan mooy alfuduul yi ki ñu tuddee alfuduul yi te mooy ki nga xam ne daa dem fekk alali jàmbur dem jaay ko wala mu fekk la nga teg sa alal mu dem jël koo dem jëndal la ci dara te amu ci sa ndigal ci fiqhul maalik yi dañ naan ko li mu def araam na waaye nag njaay mi wér na njaay mi wér na mooy bu ko boroom wéyalee mu wéy bu nee bu mu wéy ñu ñu yàq njaay mi kon euh, maalumiyatu euh, milkiyat asaman wal mabiya charte la ci jawaazul bayi ak lusumihi lan moo mën a yàqum njaay comme wax nañ li mën a defar am njaay lan moo ko mën a yàq buñ demee ci ku ñu wax xaadi abdul wahab al baghdadi ci téereem boobu ñuy wax at talqiin daf ñuy wax ne njaay moo gis la cay cosaan mooy dagan na loolu laa fi waxoon léegi jëflante yépp la cay cosaan mooy dagan na kullu bayin fal aslu fiihi l jawaaz daan lu ci luñ la ci tere rek xamal ne dafa am sabab illa ma taallaqa bihi darbun min durubil man'i daan la nag li yàqum njaay mën naa am ci ay anam am njaay li ko yàq léeg mën naa dellu ci li ñuy jaay lu mel ne nga bëgg a jaay loo xam ne lislaam dëgganalu ku ko jaay lu mel ne jaay sàngara comme ni ñu ko waxee woon léegi jaay mbaam xuux bu dee ab julit suñu koo jaay ab julit moo tax mu ne wal xinziir fi xaqil muslim jaay xeetu sobe yi sobe yi nag comme ni ñu ko jàngee ci fiq ñu ñëpp ñaari xeet la am na lu ñu wax najis mooy loo xam ne jëmm ji moom sobe la am na ci loo xam ne dañ koy wax mutanajis lu sobewu lu sobewu moom it comme ni ngeen ko xamee ci fiq ñaari xeet la am na ci lu sobewu loo xam ne la dugg la ca dugg mënuñ koo tàqale ak sobe sa am na ci loo xam ne mën nañ ko tàqale ak sobe sa loo xam ne kenn nu koo tàqalee te sobe wala boog yàlla da koo bindee mu nekk lu sobewu loolu kenn du ko jaay loo xam ne mënees na koo tàqaleeg sobe nag mënees na koo jaay bu ñu dindee sobe sa niki noonu loo xam ne kenn mënu ko jariñoo comme ni ñu ko waxee woon léegi mu ne lu mel ne ab xaj boo xam ne doyowoo ko dara dafay araam nga jaay ko xaj boo xam ne mën nga ko dawkat boo xam ne nag amal na la njariñ dalay garder wala nga koy rëbbee boobaa dagan na nga nga jaay ko ak donte ak wuute am nañ ci ci biir masab bi waaye wax ji gën a siiw mooy dagan na nga jaay lii tax njaay du baax am na ci loo xam ne day dellu ci li ñuy jaay mooy ci marchandise mi mu ne am na ci loo xam ne day dellu ci njëg gi li nga koy jënde lu mel ne mu nekk njëg goo xam ne lislaam dafa araamal ku ko jëflantee ak waneen xeet am na ci loo xam ne day dellu ci ñaar ñi séq njaay mi ak njënd mi lu mel ne xale xale bu jaayee wala mu jënd koo xam ne yaramam dafa neexut ab dof bu jaayee wala mu jënd njaay ma ak njënd ma wérut njaay ma ak njënd ma wérut waaye nag da cee teg lu am solo fii mu ne aw xayri aalimin bil bay koo xam ne xamut jaay xamut àttee jaay loolu waxoon nañ ko léegi ku jaay lu mu jaay wala lu mu jënd wérut aw mahjur alayhi wala koo xam ne ko yiir koo daal mu xamut ni muy saytoo alalam wala mu nekk xale wala mu nekk ku yaramam neexut bañ yiir ko ba nga xam ne alalam am na kuñ ko dénk mu ku koy protégeel kooku lu mu jaay wala mu jënd léeg-léeg dañ koy teree mu jaay léeg-léegi ñu ne ko li nga jaay baax na waaye balañ koo mën a wéyal dañuy laaj sa kilifa gi nga xam ne mooy saytu sa alal ñeenteel bi ci li mën a yàq am njaay am na ci loo xam ne day dellu ci jëmmi accord bi contrat bi biñ biñ biñ biñ biñ déggoo am na ci contrat yoo xam ne lislaam moo ne kenn sañu cee jëflante lu mel ne riba lu mel ne li ñuy tuddee xarar danañ ci ñëw léegi lu mel ne li ñuy wax musaabana lu ñu lu mel ne jaay moo xam ne en même temps da ngay jaay ba noppi di leblewaale lool it danañ ci ñëw léegi juróomeel bi te mooy bi ci mujj mooy bokk na ci liy mën a yàqum njaay mooy njaay moo xam ne ni nga ko defee barab bi nga ko defee wala waxtu wi nga ko defee moo tax njaay mi baaxut lu mel ne ki fekk moroomu jullitam waxtaan bay waaj a déggoo mu ñëw fay prix bu gën a ngande prix bu gën a cher prix bu gën a bari pour ñu jaay ko ku mel noonu ni mu ko defee moo tax bu ñu ko jaayoon wala ñu jënd ko wala wala mu jënd du dagan li ñuy tuddee bay on naj bay on najis mooy njaay moo xam ne kii jënd bëggut a jënd dalaa fekk ngay waxaale diw sàngam mii mu ñëw ba ci wet gi ne la ñaata nga ko jaayee nga ne ko ah man de 40 000 rek laa ko wax mu ne la ah man lii mën naa la jaay sax 50 000 fekk na boobu parewut moom pour boo ne ko woon indi cinquante mille yi mu fay la ko waaye day yokk prix bi ngir kiy jënd mën a mën a jënd waaw loolu dañ naan bu ko jaaykat bi xamee ñoom ñaan ñëpp bàkkaar bu ca am ñoo koy bokk bu jaaykat bi xamu ko nag tey njaay mi dañ koy tiri dañ koy dañ koy yàq bu fekkee jaaykat bi xamu ko nag xamul ne waa ji da koy tegal diil bu boobaa waa ji ko def rek moom mooy amee bàkkaar bi ni ngi noonu koo xam ne dafa nekk ci buntu marché bi marchandise muy ñëw rek mu kar ko gaaw jënd ko ndax xam na ne ñi indi marchandise xamuñu li xew ci marché bi ngir bëgg tayit bëgg na koo xañ waa marché bi tax xay na mu koy def ku mel noonu njaay yu mel noonu tamit ni nga ko defee defin wi moo ñaaw moo tax lislaam danaan bu boobaa waa marché bi dañ leen di woo ne leen diw sàngam ñii kar na ku fi doon ñëw doon fi indi ay toni ceeb wala ku fi doon ñëw doon fi indi ay conteneur léegi nag yéenay xool lislaam may na leen lim lim jëndoon lépp ngeen bokk kook moom kenn ku ci ne masalan bu ñu ne woon dafa am tonu ceeb bu yomb bu jóge woon dëkk sàngam nga dem kar ko ca frontière ba dem jënd ko boo ñëwee ba ci biir dëkk bi dañ naan commerçant yi jaay ceeb yépp dem leen ku ca bëgg jox ko lu toll ne la mu ko jënde woon mu jox la loola ndax dalaa dalaa xañ àq joo xam ne mënoon nga cee jot bokk na ci jaay yi nga xam ne ni nga ko defee mooy tax wala boog barab bi ñu ko defee wala waxtu bi ñu ko defee mooy tax mu araam mooy jaay ci waxtu woo xam ne dañuy noddu ajjuma ci koo xam ne julli ajjuma da koo war ñaar ñu julli ajjuma war suñu ñoo jaay ci waxtu woo xam ne nodd nañ ba noppi wala boog ñu ngi noddu nodd gu mujj wala boog kenn ki julli ajjuma war ko ki ci des julli ajjuma waru ko kon it ñoom ñaar suñu ñoo jaayante wala ñuy jëndante bu fekkente ne ñoom ñaar ñëpp nag kenn ku ci ne ci ñoom ñaar julli ajjuma waru leen sëñ nañoo jaayante sëñ nañoo jëndante léeg-léeg laaj yu mel noonu di am ñu lay laaj naan la jigéen ak jigéen bu ñuy julli ajjuma ndax mën nañoo jaayanteeg jëndante mën nañoo jaayanteeg jëndante ñi ñuy tere ñuy jaayanteeg jëndante mooy ñi nga xam ne ajjuma da leen war bu dee ñoom ñaar ñëpp la wala boo kenn ki ajjuma da ko war loolu it lu mat bàyyi xel na ku jaayante wala mu jëndante ci waxtu ajjuma comme niñ ko xamee ci fiq dañuy tiri njaay ma kon bu ñu doon tënk dañuy wax ne jaay jënd lii tax mu wér ci ni ko imam Zarruq waxee ca téeréem ba ñuy wax an nasihatul kaafiya li man xassahu llaahu bil aafiya dafa wax ne jaay ak jënd am na ñeenti farata ñeenti ponk ñeenti yu ci mënta ñàkk mooy yow miy jaay ak yow miy jënd na ngeen xam marchandise mi ngeen di jaayante ak mi ngeen di jëndante moomu bu dee ab téléphone nañ ko xam nañ xam ban téléphone la it bu dee ceeb nañ ko xam bu dee diw nañ ko xam ban façon diw la istiwaau ilmihima bisilaati ñaareel bi mooy nañ xam njëg gi nu mu toll nañ xam marchandise mi ni mu toll nañ xam njëg yi ni mu mel ndax xaalis ngay fay ndax diw nga koy joxaat ndax ceeb nga koy joxaat ila axirihi na nekk it loo xam ne dagan nañu jëflante ci na nekk barab boo xam ne dagan nañu jëflante ci na nekk mbir moo xam ne dagan nañu jëflante ci looloo tax looloo tax maan wa kawnuhu mimma yubaaxu taamulu bihi wa fiihi wa lahu ñoom ñaar ñëpp it kenn ku ci ne ñoom ñaan ñi jaayante ak jënante kenn ku ci ne na bëggal moroomam li mu bëggal boppam lii imaam sa ruux dong waxu ko waaye boo demee ci mu Ulumuddin imaam Ghazali da koy wax danaan la booy xool njaay yi araam ak euh, jëndante yi araam daanaka li koy tënk mooy saa yoo gisee ñu jaay wala ñu jënd ci anam goo xam ne dalay leer ne kenn ci dafa bëgg a moroom ji nga xam ne bu nekkoon ci palaasam du ko def xamal ne njaay moom dëgganut waaw kon ñaare njaay mi ñu la wax dëgganul rek jàppal ne exploitation da cay am léeg-léeg léegi lan moo war a mën a tax am njaay araam bu ñu demee ci téere bi ñu tuddee bidaayatul mujtahid bu imaam ibnu rushdu al jad dafay wax ne moom nee na bu ma la doon tënkal yi mën a tax ñu tere jaay mën naa la ko tënkal ci ñeent bi ci njëkk mooy léeg-léeg ñooy la lii boo ko jaayee day bu wér ndax lan ndax jëmmi loola la lislaam araamal ku ko jaaye lu mel ne mbaam xuux ak sàngara ak yi ma fi wax léegi ñaareel bi mooy riba léeg-léeg riba dana tax ñu tere am njaay ñetteel bi mooy xarar xarar danañ ci ñëw danañ ko yaatal ñeenteel bi mooy charte boo xam ne ci biir njaay meeg njëndante bi ngeen sartante ci loo xam ne dafa ñuy yóbbu ci riba wala mu ñuy yóbbu ci li ñu tuddee xarar daan ne nag léeg-léeg ñu tere la ci am njaay loo xam ne delluwut ci ñeent yi waaye dafa rax njaay mi ba tax ñu tere la ko lu mel ne xiche dañu ko ngi koy tudde maanaam waa ji xëy na marchandise mi mu jaay dagan na xëy na riba amu ci xëy na garar amu ci xëy na charte bu koy yàq amu ci waaye la tax baaxut mooy mbir la amrun xaariji la an anil muamala ak it lor léeg-léeg li tax ñu naan la li ngeen jaayante ak li ngeen jëndante dafa araam mooy lor moo ci am man nag danaa tënk ci ñeent yi mooy li ñu tudde xarar li ñu tudde riba li ñu tudde riche ak li ñu tudde ixtikaar te mooy te mooy exemple barar bi mu wax fii lor ji xarar xarar daanaka façon njaay yi ngay gis rawatina suñu njaayi jamono ji li koy yàq lu ci baree bari mooy li ñu tuddee xarar xarar mooy lan xarar bu ñu ko waxee ci fiq mooy loo xam ne ay risque da cee am xamuñ ndax dana sotti wala du sotti loolu mooy xarar nga xam ne taraddud da ciy am bay na am rey ni waaw yow daal risque rek nga deme dañ naan nag ñoom fuqahaa yi dañ naan li ñuy tuddee xarar saa yu baree ci am njaay ba njaay mi foo xool rek seetlu ci risque yooyu seetlu ci danger boobu setlu ci exploitation boobu dañuy jàpp ne njaay ma dëgganut dañuy jàpp ne njaay ma dëgganut bu dee xarar bu néew nag exploitation bu néew boo xam ne moom munta ñàkk ci njaay yeeg jëndante yi léeg ñu nax la nax bu néew boo xam ne da xam ne c'est normal loolu moom taxut am njaay ñàkk a waaye bu ñu la exploité ba nga yëg ko loolu day tax njaay mi du wér loolu la ñu tuddee xarar xarar nag mën naa am ci jëmmi pas-pasu njaay mi am na lu ñu tuddee bayoon orbuun dana ñëw ci kanam Euh, xarar kon saa yu amee wala li ñu tuddee bay'atayni bay'ataani fii bay'a mooy ñoom dañ koy misaale nit yor ab portable masalan ne la bu ma la koy jaay teew mu teew mën naa la ko jaay juróom-benn junni bu ma la koy jaay nag nga war maa fay fii ak ñaari weer mën naa la ko jaay fukki junni yow nga jël ko nga jékki jekki rek jël ko waxooñu ndax juróom-benn junni yi ci nga d'accord wala ci fukki junni loolu mooy bay bayan taani fii bayan waaw bu fekkonte ne am na da nga fixé nga piri bi nga d'accord bu boobaa dana dagan loolu day dugg ci euh, beneen anam goo xam ne danañ ko wax insha allah léeg-léeg exploitation bi mën naa am ci njëg gi wala marchandise mi wala moo am benn ci ñoom ñaar loolu mën naa am ci anam yu bari lu mel ne nit jaay la loo xam ne boo ne koo indi doo ko mën a jox wala nga jënd loo xam ne bu ñu laa indi xaalis bi doo ko mën a joxee ñoom fuqaha yi dañ ko daan misaal ci jaay giléem goo xam ne dafa ndàngaañ giléem gu daw gu koo xam ne kenn xamut fu mu nekk wala nga jaay pittax moo xam ne daf laa réer ah? wala nga jaay yére boo xam ne dañ koo sàcc te feeñagut loolu la ala taslim mënu cee am njaay mu mel noonu dëgganut léeg lekk ak réer da koy waral umpule umpule gi nag moom it bari na ay xeet léeg-léeg dañuy umpule umpule mën naa am ci njëg gi mën naa am ci marchandise bi boo jeg jekkoon wax nit ne ko jaay naa la li ci sama poos li ci sa poos xamut lu mu doon njaay mu mel noonu ci lislaam dëgganut wala mu jaay la dara nga ne ko faye naa li ci sama poos li ci sa poos mën naa am mën naa tolloog prix bi mën na koo ëpp mën na koo yées lu mel noonu dëgganut dañoo war a xam tamit euh, li ñuy jaay moo xam muy prix moo xam muy marchandise dañoo war a xam ni mel boo ne ko woon jaay naa la sama yére ba ca kër ga du xam ndax sa léngoo ba ngay wax du xam ndax sa jasineer ba ngay wax du xam ndax sa perkaal ba ngay wax lu mel noonu dëgganut damay commencé tënk ndax waxtu waa ngi deme dañoo war a xam tamit ni mu toll bu ñu xamee ni mu mel ba noppi dañoo war a xam ni mu toll ñu boo gisoon nit ne ko kaay ma jaay la sama téléphone bi mu la loo ma ko jaayee nga ne ko li ko waa bi jaayee njaay mi dëgganut ndax lan ndax bi mën naa am lañ koy jaaye yow mii jënd ba tey xamagoo nu mu dañoo war a xamit euh, li ngay jënd ndax mucc na wala muccut bu fekkente ne day loo xam ne dangaa jënd loo xam ne masalan dangaa fekk ku jëmbat am njëmbatam commencé gu ta jeeb bi mu jekk-jekki jaay la ko bayon samara xabla xabla euh, salaaxiha lu mel noonu dëgganut ndax xamoo ndax dana meññ wala boog du du meññ xarar tamit dana amee ci li ñu tuddee ximaar carte ñoom carte dañ ko daan misaale li ñu tuddee bay'ul munabasa nga xam ne dalay sànni yéreem dalay sànni am nga sànni ko mbubb kenn ku ne dem sa yoon nga xam ne lem mi du ci am xool du ci am saytu du ci am daanañ ko tuddee daanañ ko misaale bay'ul mulabasa mulamasa nga xam ne dafay teg day teg ay yére yu bari yow boo ñëwee boo ci laal rek da ngay fay prix force léegi bi nga laal mën na laa gënal mën na la bañ a gënal loolu ximaar la carte la daanañ ko misaale bayul xasaat koo xam ne day yor aw xeer léegi boo ñëwee di jënd xeer wi bu ko bàyyee yëre bu mu dal rek mooy sa mooy sa sens waaw lu mel noonu it dëgganut moo tax boo demee ci ibnu rush ibnu rushdu al jadd ci téeréem bi ñuy wax al muqaddimaat al mumahidaat wax na fa wax ju am solo dafay wax ne jaayeek jënd saa yoo gisee boroom xam-xam yi wuute ci wuute gu bari la tax lay waral wute gi mooy dañuy xool ndax xaraar am na ci wala amu ci ndax xaraar bari na ci wala bariwu ci ndax naxaate bari na ci wala bariwu ci ñaare bu ci naxaate amul rek wala bariwu ci rek njaay ma day dagan waaye saa yu ci amee rek saa yu ci baree rek ñoom ñëpp dañuy dëppoo njaay mi araam na saa yoo xamee ne bariwut néewut lu mel noonu mooy indi ak wuute ndax mën ngaa jaay wala wala mënoo jaay kon loolu lenn la ci lii tax ñuy tere njaay muy xaraar bokk na ci li tax ñuy tere njaay mooy riba ak façon riba bu mën a doon moo xam da ngeen a weccoo ñaar yoo xam ne nangu xaar nangu wut xaar wala boog ngeen weccoo ñaar yoo xam ne nangu wut ëppalante wala boog riba boo xam ne dafa juddoo ci bor waaw nga lebal nit ki ñaat téeméer mu fay la ñaat téeméer ak juróom fukk ci loo xam ne da nga koo sartoon dangeen koo sartante wala book day aada ci yow dañ laa xamee xam nañ ne daal ku ñëw ci yow nga lebal ko waaye bu lay fay dalay yokkal lu mel noonu day dugg ci riba wala ñoom li ñu tuddee daa wa taajjal nga xam ne nit da nga koo lebal fukki junni bàyyi nga ne ko bu weer wi deewee bu weer wi deewee nga may fay nga bàyyi bala 15 nga xaw a banque rek dem ne ko jox ma juróomi junni léegi bor bi wàcc la mooy jox ma léegi bu ko defee nag la nga waroon a fay ma nga xam ne charte lay doon nga ne jox gi mu lay jox léegi force da koy jéggal juróomi junni yi ca des loolu la ñu tuddee daa wa taajjal loolu it xeetu riba la kon riba dana tax jaayante ak jëndante araam li ñu tuddee riche riche nag mooy tricher mooy nit nëbbu ci njaay mi loo xam ne bu ko leeraloon kii jënd day deltu ginnaaw moom tricher moomu nag nit dana ko def ay société danañ ko def kuy def marketing dana ko dana ko def rawatina ñuy def publicité yu mel noonu kon riche dafa araam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ne xadis boobu nga xam ne ñëw na ci saxiix ñu ne dafa ñëw fekk ku taaj aw ñam ëmbub ñam mu dugal ci loxoom fekk mu tooy mu ne borom ñam wi lii lan la mu ne ko dafa tawte mu ne ko lu tee li tawte nga jekki ko ba mu tegee ci kaw kuy jënd bu ñëwee mën a am choix mën a xool ba xam day jënd wala boog jëndut loolu ci riche la bokk riche nag bari na anam yu ñu ko defee léegi loolu bokk na ci melal am njaay di ko rëyal di ko duufal fekk melut noona wala nga fekk kuy jaay dara nga xeebal ko nit ñi sabooteel ko nit ñi bañ bañ deltu ginnaaw loolu lépp ci xeetu riche la ci xeetu triche la mumaarasa la bu araam euh, fekk njaay moo xam ne amul qualité ngay wan nit ñi ne am na qualité léeg-léeg nga dem àbbi turi turi jàmbur taf ko ci njaay bi wala nga jaxase lu baax ak lu bon lu mel ne kiy jaay ndox mu neex bu ko raxee ak ndox mu naqari loolu triche la waaw wala ngay jaay loo xam ne xam nañ ne du original nga dem taf ci taf ci ay ay taf yoo xam ne day wane ne original la loolu lépp xeetu triche la dafa araam ci lislaam ixtikaar ak kanz moom it dafa araam damay tënk rek ixtikaar nag mooy rënk marchandise mu nit ñu soxla rawatina boo ajoo ci ak dund waaw jël ceeb bu baree bari denc ko fekk nit ñi soxla nañ ko wala nga jël gerte gu baree bari denc ko fekk nit ñi soxla nañ ko waaw nga xam ne te ci yow rek lañ ko mën a amee ci yow rek lañ ko mën a amee loolu la ñuy wax ixtikaar lii may wax nag am na ci xadis boo xam ne imaam Malik li na ko ci Muwatta boo demee ci saxiixu muslim am na ca xadis bu mu li boo xam ne danaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam danaan laa yaxtakiru illaa xaati kii rënk marchandise mooy kii def bàkkaar waaye demee ci sarakati yi lu mel ne téere bi ñuy wax al mufhim al mufhim bu ibnu ibnu euh, abul abbas al xurtubi def bokk tëg nag xurtubi mi nga xam ne mufassir la daf lay wax ne bu ñu xoolee ba xool daal ixtikaar bi araam mooy ixtikaar bi nga xam ne dafa aju ci marchandise moo xam ne nit ñi buñ ko amul dañu loru te yow rek yaa ko fi am te mu fekk nga jënde ko ca marché ba ngir bëgg koo jaay it ñetti sart yi day am ci marchandise ñu soog laa ñu soog koo mën a tudd ixtikaar mooy da koy jënde ca marché ba da nga koy denc ci fekk nit ñi soxla ko waaw da nga koy fas yéenee jaayit lu mel noonu saa yu amee dañ naan la dañuy dañ lay forcer dañ lay forcer nga jaay ko bu fekkonte ne jëndee woo ko ci marché bi nag dañ la koo may rek bu la neexee dencal bu fekkee jaay taxulaa jugit da nga koy jënd ngir dunde ko yow wala ngir dunde ko yaag sa njaboot ba tey boo ko ixtikaaree loolu duñ ko tudde sax ixtikaar waaye iddi xaar lañ ko tudde ndax wér na ne yonent bi sallallahu alayhi daana denc ak dundam ak dundu njabootam lu mat at wala lu ko ëpp kon daal lii euh, am na lu ñuy wax këns këns moom ci alal lay jëm ixtikaar bu ñu ko waxee marchandise la ñuy la ñuy denc la ñuy rënk bu dee këns nag mooy ki nga xam ne dafa téye alalam nangu cee génne asaka nangu koo def ci yoonu yàlla nangu cee joxe dépense yu doy loolu la ñuy wax këns mooy rënk rënk moom dafa araam boo seetloo ixtikaar ak këns dañoo jàkkaarloo ab jaaykat mooy def ixtikaar ab jëndkat mooy def kënz waa kii jaay mooy lànk denc lu nit ñi soxla waaye kii consommateur bi nga xam ne moom mën naa génne alalam mu circulé ci kanamu mbooloo mi kooku mooy def kënz moom it dafa araam gis ngeen ni ko euh, lislaam araamale ci alxuraan di wax naan ñi nga xam ne dañuy rënk wurus ak xaalis duñ ko dépensé duñ ko dugal fi mu war a dugg suñ borom da leen mbugal mbugal mu metti wallazina yaknizuuna aldahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fa bashirhum bi adabin alim kon loolu lenn la ci luñ mën a tënk ci lii mën a tax am njaay yàqu te wax naa ko léegi muy xarar di ribaa di riche di ixtikaar wala muy këns damay mujje ay xeeti jaay yu siiw yu ñuy def fii ñu xool nag ñu bëgg a xool nag la ca dagan ak la ca daganut njaay mi may njëkkee mooy njaay mi ñu wax bayul ghaib ala sifa mooy kii jaay lim lay jaay nekku fi waaye dala koy melaloon rek lii nag ñu baree bari ñu ngi koy def nañ xool ndax dagan na wala daganut masalan ab oto la lay jaay oto baa ngi war a jóge Amérique yow gisoo oto bi waaye dalay wax oto bi li ci am yépp dalay wax marque bi dalay wax couleur bi dalay wax état moteur bi dalay wax lépp loolu bayu alxaayib la ala sifa dagan na wala daganut ñaareel bi mooy njaay moo xam ne da ko gisoon ba noppi lim lay jaay njëkkoon nga ko gis masalan yaa ngi tuubaa mooy la keroog ba nga ma ganesee bi ñuy soog a um bi nga ma ganesee gisoon nga oto bi ci bi woon ci bundu kër bi nga ne ko waaw mais la moom laa la bëgg a jaay gisoon nga ko waaye fi ne nii fi ngay jaayante fi ngay jëndante moom oto bi teewut loolu la ñuy wax albayu ala ruya saabiqa ñaari façon jaay yooyu dagan na waaye nag day am ay charte charte bi ci jiitu dañuy wax ne na bañ a sori lool na bañ a sori lool ab la lay jaay lu mu la mën di jaay kër la lay jaay lu mu la mën di jaay na bañ sori lool ginnaaw nekk fi na bañ a sori lool ñoom lu tax ñu naan la na bañ a sori lool ndax dañuy bañ ak soppi ko am ci dañuy bañ diggante bi mu la koy waxee ak bi nga koy xoolee bu doon oto nga fekk moteur bi commencé commencé manqué masalan wala nga fekkoon nga fekk peinture bi ruus bu dee aw ñam nga fekk mu yàqu waaw kon dañ naan na bañ a sori lool ñoom bu njëkk sori gi dañ ko daan misaale andalus ak ya boo demee ci téere fiq yi loolu lañ lay wax léegi nag am na ci marchandise yoo xam bu yàggee soppi ko dañuy am lu mel ni xeeti fruit yi ak xeetu lujum yi kon ku la doon jaay lu jum yoo gisut wala fur wi yoo gisut bu soree lool njaay ma baaxut ndax mën naa soppi ko soppi ko mën na ci am na ci yoo xam ne nag gaawut soppi ko lu mel ne ay pàkk ak yu mel noonu boobaa mën naa dagan léegi bu dee suñu jamono jii ndax distance yi dañ koy xool wala duñ ko xool wax naa fi léegi ku lay jaay oto bu nekk Amérique wala bu nekk itaali wala sax bu nekk réew yi gën a sori ndax boobaa dañuy xool distance wala duñ ko xool boroom xam-xam yu bees yi dañ ne distance léegi di mënees na koo bañ a xool bu jafe-jafe amut ki lay jaay oto wala mu lay jaay ay lal wala mu lay jaay matériel bu mu mën a doon bu fekkee fam la ko jaayee daa sori loolu waaye nag mën na la koo libéré ci lu gaaw dagan na ndax soppi ko mën na ci bañ a am bu fekkee gàllankoor dafa am nag lu mel ne pour mu indi la ko day aajo mu am visa te lijjanti visa yombut boobaa moom du ngeen sañ a jaayante ci loo xam ne teewut ñaareelu sart bi kon na bañ a sori lool mooy sart bu njëkk ñaareelu sart bi mooy na bañ a jege lool waaw suñu am di mii bu ma doon jaayee dara tey ma ne ko moom mu ne ma ngi ca kër ga dañ naan ñu kon boobaa sëñu lu koo melal la da koy gisi force danga koy gisi ndax bu ñu naan la bayul xaayib day fekk loo xam ne pour nga jug seeti ko day jafe waaye loo xam ne moom mi ngi teew faw danga koy gisi waaw bu fekkente ne da ñëw nag mu tegal la ko ne la mi ngi nga ne ko ubbil ma xool mais la ah day loo xam ne bu ma ko ubbee mën naa yàqu wala day yére boo xam ne bu ma ko lemmee lemaat ko mën naa bañ a yomb boobaa dagan na nga jaay ko ci ci ni nga ko gisee nii rek ni mu la ko melal rek kon ay xeetu jaay la yoo xam ne dagan na kon loo xam ne dañ ko paqueté wala ñu saañ ko donte teew na sax mën nga koo melal rek ne ko li ma la wax moo ci am boo ko ubbee nangam ak nangam ak nangam ak nangam nga fay fekk ki lay melalal am njaay tamit bokk na ci charte yi mooy na la melalal lépp bu mu yam rek ci wax la ban xeetu ban fas ban xeetu marchandise la wala ban qualité la am waaye da lay wax lépp masalan bu doon pàkk la lay jaay boo gisut faaw mu wax la pàkk bi fan la nekk ñaata meetar la lan moo ko féete kanam lan moo ko féete ginnaaw ndax suuf sam nekk suuf suy taa la ndax du suuf suy taa bu dee kër gu ñu tabax faaw mu wax la lañ ko tabaxe ndax ci mool yu baax yi lañ ko tabaxe mool yi di ko doomu yi wala boog tabaxu ban la ila axiri yi faw aw saaf yépp da koy wax ndax dañ naan la danga war a wax lépp rek loo xam ne mën naa tax bëgg-bëggam yokk wala mën naa tax mu bañ lépp da nga ko war a wax ñetteel bi mooy ki lay jaay kii loo xam ne dala koo melal rek sëñu laa wax ne la faaw danga may jox njëg gi léegi sëñu ko bu ngeen waxtaanoon ba juboo nag nga ko doon jaay ab pàkk bu nekk ca sexaw ga masalan wax ko ko ba mu wax ko ba mu ba ne nangu naa bu boobaa bu jëkk bu jëkk-jekkee ne la njëggaa ngi nii mën na maa teewal loolu dagan na moom waaye li daganut mooy nga ne ko faw da nga may jox njëg yi léegi déedéet bu ko defee ci coobareem nag baax na loolu mooy al bayul gaib ala sifa wala ala ruya sabiqa bu fekkente ne dañoo bëgg njaay mi yam fa nga xam ne da ngay dem ma dem amatu choix bu fekkonte ne nag day njaay moo xam ne dala koy melalal nga ne ko ah dañu ci teg condition danga naan ma damay def ni nga ma ko waxee li nga wax dégg naa ko léegi bu ma ko gisee nag mu arrangé ma njaay mi woy na bu ma ko gisee arrangé wu ma njaay mi wëyut loolu mooy da koo teg ci ak xiyaar bu boobaa moom nu ngeen ko defee baax na kon fi ñu lay tegal ay condition mooy bu fekkente ne dafa nekk li ñu tuddee bay'ul bat nga xam ne bu ngeen jaayante rek day dem mu dem waaye fekkente ne xiyaar da ca da caa am boobaa moom ay condition amu ci nu ngeen ko defee baax na waa kii la melaleel marchandise nag ba jaay la ko léegi boroom xam-xam yi dañ naan la boo gisee marchandise ma bu dee lu ñuy ubbi la nga ubbi ko bu dee lu ñuy xool nga xool ko bu dee lu ñuy dawal nga dawal ko ba gis ne nam la ko waxee woon noonu la demee boobaa njaay mi suñu tuccee dal ginnaaw bu fekkee nag danga koo gis mu demee nu wuuteeg nam la ko waxee woon dañuy xool bu dee loo xam ne lu baaxoo am la waaw lu baaxoo am la comme ab oto nga ñëw fekk pneu bu peer te waxoon na la pneu pneu bi xam nga ne pneu bu peer moom du lu du lu garaaw boobaa ba tey njaay bi day wéy bu fekkee da ngaa fekk nag da nga faa fekk ay erreur ay ay ay ay ay ay njuumte yu baree bari danga nga faa fekk ay défaut yu baree bari boobaa dañ naan la yaay xool bu la neexee lii nga xool nga génne ko ci prix bi bu la neexee bu fekkente ne sikki si dafa bari nga xàcc njaay mi nga def li ñuy wax rabdul bay kon façon njaay moomu njaay mu lu baree bari la luy am lu baree bari la kon tey ab commerçant bu bu jekki-jekki woon ay conteneur ñëwal ko ci kanamu palaasam ne ko lii lépp dama koy jaay jërul mu naan ko mu naan leen yebbi leen lépp ma xool bar benn par benn déedéet mën na leen a wax lu ci nekk ñu jox ko catalogue mu xool euh, léegi nag bu demee ba yebbi bu demee nañ ko waxee woon njaay mi day woy bu demee nu bokkut nañ ko waxee woon njaay ma du wëy ñaareelu façon njaay mi mooy li ñu tuddee albayon alan na muusaj mooy njaay moo xam ne dafa tegu ci ay échantillon ay échantillon rek la jox wala albayon alal barnaamij njaay moo xam ne euh, catalogue nga yor te gis ngeen façon njaay yi léegi moo gën a bari bu ñu lay jaay télé bu ñu lay jaay frigo daanaka léegi lu ñu lay mën a jaay catalogue lañ lay jox catalogue bi ci ngay fekk lépp ci ngay fekk ni koy utiliser ci ngay fekk garantie yi ci ngay fekk ni koy taale ni koy fayee ñaata at la mën a diire fan lañ ko war a teg ba du yàq yu yëpp ci catalogue bi nga koy fekk njaay moomu la ñu wax al bayu ala namudaj wala al bayu ala al barnaamij moom it dagan na dagan na ci fiqhu Malik waaw Euh, dana faral di am sax am na ci ñoo xam ne léegi société yu mag yi ak entreprise yu mag yi ay échantillon lañuy defar bu ñuy jaay ay tiise dañuy def dañ koy dagg dañuy def ay daggat yu baree bari def ci couleur yu wuute léegi nag yow boo ñëwee daggit bi ngay xool rek waaw daal man lii laa bëgg nga def nga nga nga nga xoolal ma ci nangami meetar bu dee ay sijaada la ñuy jaay masalan mën nañ cee defar échantillon bu ndaw yow ci échantillon bi rek ngay sukkandiku daal bii xoolal ma ci sijaada gu mag ëndil ma ci quantité bu toll nangam loolu it ci masabu imaam Malik dagan na dagan na léegi nag liñ ko wax bu la ko indilee mu demee noonu njaay mi sañu koo xàccati day continuer bu fekkee ne daa ñëw nag manqué manqué moom dalay dolli la manqué bu fekkee daa ñëw ëpp yow yaa koy jox lam lam ëpp li may wax nag ñu ngi ko jële ci muxtasar xalil fi muy waxee naan wa jaaza bi ruyati baadil misli wassiwaan wala wassuwaan wa alal barnaamij am na beneen façon jaay mu siiw moo xam ne dana faral di am mooy li ñuy tuddee al bayu ala ruyati siwaan mooy jaaykati xaal yi jaaykati koko yi masalan jaaykati nen yi léeg nga ñëw masalan boo génnoon di jënd xaal ci mazhab bi dañ naan la xaal ji jëruñ ñu koy xolli déedéet jëru ko waaw moom mën nga koo jënd rek ci kaaw gi ne boo doon jënd gerte doo ne gerte gi faaw dañ koy xolli déedéet loolu lañ naan al bay'u ala ru'yati sawaan moom it dagan na ndax bu bu fekkente ne kuy jënd xaal dañ lay xolli rek wala kuy jënd kooko dañ lay xolli rek wala kuy jënd am nen dañ lay tojal bu yàggee moom mi jaay da ciy gaañu nag wax dëgg yàlla dagan na luy mel noonu nga jënd ko léegi boo ko jëndee fekke ko nañ la ko waxee woon njaay mi nu suñu too cee deltu ginnaaw boo jëndee lu mel noonu gis ne da ñëw fekk mu am ak wuute masalan jënd nga fa boo dee ko bëgg neen ku mel ni si ñu am ni mi jënd nga fa ay paquet neen yu baree bari ñëw fekk fa ñaari nen yu yàqu loolu da ngay xam ne c'est normal wala ñaari ñaari nen yu tocc danga koy muñaale boo ñëwee nag programme woon cee omelette fukki fan yéeg ne juróomi fan rek nga ci mën a omelette boobaa sañ ngaa xàcc njaay ma kon naxe gi bu baree rek sañ ngaa xàcc am na beneen façon njaay muy am moo xam ne moom it ñu ngi koy def ci adduna bi yëpp moom la ñuy wax al bayu alal musawaraat mooy njaay moo xam ne day tegu ci plan ay palan lañ lay jox dañ lay jaay lu sotteegut da ngay gis entreprise wala nit ñoo xam ne dañuy dem jënd ay terrain yu baree baree bari dem fexe ba fay impôt yañ ca war a fay waajal ko bam bam bam mu rafet wutal ko ay plan léegi nag daa di daa di wax ne dañ koy jaay bu naan la dañ koy jaay dañ naan la kër lañ lay jaay léegi yow boo ñëwee di jënd boo ñëwee plan bi lañ lay jox dañ naan la fi ma terrain bi ma la bëgg a jaay fii la nekk kër gi nii laa ko bëgg a tabaxee nii laa ko nii la war a demee nii la war a yaatoo nii la war a gudde nii la war a wax la yi ci yi ci aju yëpp léegi yow booy jënd nooy def danga naan waa léegi jënd naa ko waaye nag ba ma leen di fay dama leen di fay weer wu dee nangam njaay mu mel noonu jaay dalaa jaay lu sottee gut léegi nag moom entreprise bi wala moom nit ki mooy dem tabax yi kër ga bu dee kër bu dee magasin mooy dem tabax ko bu dee ay ay ay appartement mooy dem tabax ko bu dee butik mooy dem tabax ko njaay mu mel noonu ndax dagan na wala daganut day mel ne boroom xam-xam yi dañ ne dagan na dañ koy dugal ci lu ñu tuddee istisna mooy kon kii liggéeylu ni mu def rek xam nga booy liggéeylu ab armoire da ngay joxe da ngay joxe xaalis kii kii lay liggéeyal mooy dem jënd matériel mooy liggéey loolu la ñu tuddee istisna bu fekkee da ngay jënd matériel bàyyi ko muy liggéey rek loolu ijaar la ñu ko tuddee ijaar waaw kon ñu baree bari ci borom xam-xam yi nee nañ dagan na dañ koy dugal dañ koy dugal ci aqdul istisna am na nag ñu ne dëgganut ndax bay'ul ma'dum la jaayloo loo amagut la waaye day mel ne ñu ne dagan na moo gën a bari am ñu ne bu ñu bëggee mu dagan dañ naan li ngay fay par weer duñ ko jox du dellu ci société bi wala ki moom projet bi waaye dañ dañ koy jëndee matériel yi dañ koy jëndee matériel yi loolu mooy tax mu dagan beneen façon jaay ci jaay yi siiw mooy jaay loo jëndagut bayu maa laysa fii milki baayihi wala boog li ñu tuddee bayu maa laa yamlik jaay loo jëndagut ndax dagan na wala daganut danañu dal ñun ñëpp léeg-léeg ñu dem ci ab place fekk fa kuy commerce ñu ne ko nangam lañ bëggoon mu ne ñu fi ne ñii de nekku fi fi ne ñii de nekku fi moom waaye nag mën naa la ko wutal nga ne ko wutal ma ko fay naa la ci nangam loolu dagan naan dëgganut xam nañ ne ñëw na ci xadis boo xam ne xakimu xisaam moo ko nettali nee na xakim mooy nettali nee na damaa dem ci yonente bi ne ko yaa rasulallah man kat léeg-léeg nit day ñëw ci man di jënd loo xam ne amaguma ko ma dem jëndi ko ñëw jaay ko ko yonente bi ne ko déeret laata tabi maa laysa indak bul jaay loo amagut bul jaay loo jëndagut boo demee ci baar yi bu ibnu xajar dafa lay wax ne ibnu munzir nee na jaayaloo amagut mën nañ koo firee ñaari firin mooy benn nga ne ko dama lay jaay sama jaam bi wala sama kër gi fekk amagoo ko loolu boobaa day dugg ci xarar gi ñu doon wax léegi mën ngaa dem am ko mën ngaa dem di ko jënde am ko man ngaa dem bañ koo am ñaareel bi mooy nga ne ko dama lay jaay oto diw sàngam bii waaye nag damay dem jënd ko ci moom ba pare nee na yooyu yëpp Ibnu Xajar nag bi mu waxee loolu ba noppi dane bii mu mujj wax moo ci gën a yenu maanaam léegi e, risaala bi ñu jàng risaala bu Ibnu Abi Zayd al-Xayrawaani bi bu ñu demee ci risaala danañ gis mu naan wala yajuusu bayu maa laysa indak ala an yakuna alayka xaalan sañoo jaay loo jëndagut bu fekkente ne njaayum teew mu teew la nga xam ne ki lay jaay ko nga koo teewal loolu nag boo demee ci suraax yi ku mel ne nafraaw yi ci e, alfawaakihu dawaan yi daf naan la te dañ lay tere yow miy jaay ngay jaay loo xam ne ëmmagoo ko ndax loolu day dugg ñoom liñ ko liñ ko layee le mooy day dugg ci li ñu tuddee asalamul xaal xam nga salaam dagan na salam mooy lu mel ni ab baykat ñëw bëgg nga bëgg nga financé ko nga ne ko danaa la financé waaye boo bayee ba noppi danga may jox nangami toni nangam nangami toni ceeb wala nangami toni gerte wala nangami toni dugub nga xam ne yow da ngay jënd loo xam ne loo xam ne juddoogut loolu dagan na ci fiq waaye fii boo joxee jënd kat bi ne ko jaay ma nangam fekk amagu ko da koo war a wuti boobaa day mel ne salam nga def waaye salam bu teew nga def ñoom loolu lañ ko layale moo tax ñu ne daganut moom nafraaw yi day wax ne loolu kat booy xool day mel ne rek da nga da nga koo jox da koo jox masalan day mel ne bu ma la ne woon jaay ma téléphone bii fekk téléphone bi yow amagoo ko da koy wuti day mel ne dama laa jox fukki junni rek ne la demal jënd li ma téléphone bu dee jar fukki junni baax na kon léegi pertu ma perto bu dee jar juróom-ñetti junni loolu day mel ni ki lay jëndali moo perto moom xam nga loolu moo tax ñu loolu safax la boo demee muy jar fukki junni ak ñaar mooy yow kon yow lañ nax moo ne ñoom jaay loo jënd wut dëgganut waaye nag ci même saraa boobu am na lu bari lu nit ñi def loo xam ne da ko cee settee daf ne la bu fekkente ne ki ngay jaaykat bi jaaykat bi ngay deflanteel lii day jaaykat boo xam ne marchandise mi ngay sàkku ci moom day marchandise moom baaxoo am masalan jaaykat boo xam ne meew rek lay jaay nga ñëw ne ko jaay ma nangami quantité ci meew may la fi ne de amu fi waaye fii ak suba mën naa la ko indil mën naa la ko libere nee nañ boobaa dagan na loolu bàyyi xel la bu jaaykat boo xam ne lii rek lañ ko xamee nga xam ne li koy am bari na boobaa dagan na moo tax nafra wi di wax naan mawduu kalaami almusannif an albaya waqaa ala silaati qabla an yamlikaha baayiuha wa dalika munia lima arafta min ann hada mafhumu salam aljais dem bam yàgg mu naan wa amma law talaba saxsun min aaxar silaa lies loolu baneen baneen masala la waaye dafa wax ne wa amma law kaana yaxlubu wujuduhu indahu bu fekkee li mu koy am bari na fa innahu yajuus an yashtariyahu minhu ala alxulul koo xam ne ciment rek lay jaay boo demee mooy la fi ak ñaari fan nga jot jox ko loolu dagan na waaw kon jaay loo jëndagut mën nañ cee tënk loolu beneen façon jaay boo xam ne nit ñi koy def mooy jaay aw ñam woo bu ñu la libéré bay bayon taam xab la xab dëxii lañ ko tudde ñoom fii nag dañ fiy séddale ñam ñaari xeet borom xam-xam yi dañ naan la ñam am na ñam yoo xam ne riba da ciy mën a am loolu la ñuy wax taam ribaw yi am na ci ñam yoo xam ne riba du ci am bu dee fii nag ñam mu mën a doon la ñu wax dañ naan la li ngay jaay li ngay jënd benn mu nekk aw ñam wala mu nekk leneen fi ne xar mi ngay jënd ca daral ga sañ nga koo jaay te joxaguñ la ko oto bi nga jënd sañ nga ko jaay te te libéré la ko waaye aw ñam sañu koo jaay te libéré guñ la ko aw ñam moo xam muy ceeb moo xam muy dugub moo xam muy meew moo xam muy lu mën a doon ñam woo xam ne da koo jënd da joxe dara ñu jox la ko da koo jënd wala da nekk ci place di liggéey ñu la koy faye wala dañ la ko joxe cen bu dee jigéen ñam woowu sañoo koo jaayaat njëkk ñu la koy libere waaw loolu it lu ma a bàyyi xel la moo tax boo demee ci tux fa mu lay wax naan wal bay'u lit ta'ami qabla al qabdi mumtani'un ma lam yakun an qardi ibnu jusay ci alxawaanilul fiqhiya dafay wax ne ku jënd aw ñam walla ñu liggéey loola fayee la ko wala ñu joxe la ko ndàmpaay wala ak juboo wala mu bu dee jigéen ñu joxe ko ko ak can sañu koo jaay sañu koo jaayaat njëkk mu koy jël njëkk ñu koy libéré libération bi nag danañ wax léegi ni muy demee lii nag niñ ko waxee ci aw ñam facture yi ñu lay jox léeg-léeg da ciy dugg masalan état mën nay libéré commerçant bu mag quantité bu baree bari ci meew wala ci ceeb walla ci dugub léegi joxu ko ko waaye da ko jox facture xamal ko ne ko fii ak nàngam boo demee port da nga fa am danga nga fa da nga fa am nàngam ci quantité nàngam wala boo demee garage nàngam da nga fa am quantité nàngam commerçant boobu boo yoree facture boobu est-ce que sañ naa jaay quantité boobu ñëkk ñu koy libéré déedéet sañu ko ndax loolu day dugg ci bayon temps xam la xam dafa ñëw ci muntaxaa bu al imaamu baaji mu ne ñëw na ca xutbiya ci riwaaya ashab bu mu jëlee ci Malik ne Omar ibnu Xattaab lim daan jox soxna yonente bi ci aw ñam loolu mën nañ koo jaay njëkk ñu koy njëkk ñu koy jël kon jigéen li nga koy jox nga xam ne moom dépense am la jënd ko loolu sañ na ko jaay avant avant ñu koy avant ñu koy libéré kon bu ñu naan la jaay aw ñam njëkk ñu la koy libéré day ñu fekk ñam woo xam ne da koo jënd di ko jaayaat waaye kon jamonoy màggal Tuubaa léeg danañ fi séddale ay ceeb wala léeg nga gis Tuubaa ca kanam fekk néew ju doole ju mel man mu jox ko ak ceeb bu bari wala daayira Muxaddamatul Xidma fekk ku mel ne man mu jox la suukar su bari buñ ne maa am nga fi suukar rek sañ naa ko jaayaat ndax jënduma ko moo tax kon ñam wi nga xam ne sañoo koo jaay njëkk nga njëkk ñu la koy libéré mooy ñam wi nga xam ne da koo jënd wala dalaa dikkee ci payoor wala dañ la ko jox cen loolu it lu ma ta bàyyi xel la ñoom liñ koy layale boo demee ci tasuul yi ci bëx ja daf naan la dañuy bañ ay accords yu baree baree bari di di nee dem rek te xabdu amu ci te li récupération amu ci ndax loolu boo amee bu yàggee dañuy tijaara bil arxaam rek maanaam ay ay ay ay numéro fi nekk rek waaye daanaka marchandise mu taxaw du am bu te loolu na mën nañoo dem ba nit ñi def ko ay pexe di jaayanteeg jëndante moo xam ne du tegu fenn boo demee ci du suuq yi sax joxe na ci beneen illa beneen sabab mooy dafay wax ne borom xam-xam yi dañuy wax ne bu ñu doon bàyyi noonu rek di jaay ak jëndante ci ñam yoo xam ne dañu ko récupéré bu yàggee dañuy xañ àq yenukat yi ndax yenukat yi dañoo am àq ci euh, ceeb bi ñuy yenu dañuy xañ àq peesekat yi dañuy xañ àq borom sareet yi bu dee fii ci Touba ak borom oto yi nga xam ne dañuy libere waaw kon moo tax aw ñam bu fekkee da nga koo jënd di ko jaayaat faw nga récupéré ko récupéré gi nag mooy lan mooy ñu nattal bu dee lu ñu peese nañ la ko peeseel ne la mi ngi nii def ko ci say disposition moo xam nag da nga koo bàyyee ca place ba moo xam na nga ko yóbbaale loolu la ñuy wax récupération beneen façon njaay moom wax naa ko léegi mooy ñi nga xam ne dañ lay jaaye dara ne la boo ko jënd teew mu teew juróom benn junni laa la ko jaaye bu dee da ngay bàyyi ba weer wi dee nag 40 000 laa la ko jaaye loolu dagan na dagan na boo ko jëlee 40 000 ngay fay loolu dagan na li daganul mooy nga jël ko te xamuñ ban prix nga ko jëlee waaye boo ko jëlee ci prix bu ñu xam rek dagan na am na lu ñuy wax bayul istijraar moom it lu baree bari la <coughs> masabu imaam Malik ñoom dañu ko daan tuddee bayu ahlil madina xam nga kenn ku ci ne ci ñoom dana la faral di dal boo dendee ak butik wala place nga dem di fa jël par ndànk-ndànk ceeb wala nga dem di fa jël ay yére wala nga dem di fa jël ay matériel ay bagage nga wala nga dem di fa jël ciment bu fekkee da ngaa nekk ci sànc léegi boo demee ba at mi jeex wala ba ñaari weer yi jeex wala ba weer yi jeex ne ko ñaata laa fi am muy la am nga fi nàngam nga dem fay loolu dagan naam dëgganut ci maalikee yi dañ naan loolu am na mën naa am ci ñetti anam anam gu njëkk gi mooy dangay dem ci jaaykat bi nga jox ko somm masalan damaa ñëw ci yow jox la juróomi junni ne la bis bu set danaa fi jël kilo suukar fekk kilo suukar xam nañ ñaat lay jar loolu dagan na kon saa yoo xamee ne li nga joxe njëg gi xam nañ ko marchandise bi mu la war a jox xam nañ ko dagan na ndax boobaa danger amatut loolu la imaam Maalik di wax naan wala ba'sa an yadaa rajulu inda rajuli dirhaman ma yaxudu minhu bi rubin aw bi sulusin aw bi kasrin maalum silantan maaluma boo demee ca bàyyi ji daf naan la lu mel ne nga jox ko dara bis seet mu jox la ci nangam ci soow wala nga jox ko dara bi seet mu jox la ci nangam ci ci tàndarma nga xam ne prix bi xam nañ ko marchandise bi xam nañ ko ñaareelu anam gi mooy nga jox jaay nga bàyyi ci jaaykat bi ab somme masalan bàyyi nga fu fukki junni euh, ne ko dee ma jox bis bu set nangam ci liitar yi diw walla nangam ci xeer bis bu set waaye lii problème bi mooy marchandise mi nga ko wax day marchandise moo xam ne prix bi day yéeg ko wàcc loolu dëgganut lu bare nga koy def nag waaye dëgganut marchandise moom ne prix bi day yéeg ka wàcc sañoo faa bàyyi somme di ca jël par ndànk-ndànk ndax ñoom loolu dañ naan dafa am xarar ndax léeg-léeg piri bi mën naa yéeg piri bi mën naa wàññi ko loo xam ne nag xamoo xamoo ba ba ba mënoo fixer prix day dugg ci xarar gi ñu doon wax léegi day dugg ci naxaate gi ñu doon wax léegi loolu moo tax boo demee ca imam yi daf lay wax ne li anna ma aqada alayhi min as-saman majhul ndax prix ba tey kenn xamul prix bi nga fi ndax tey mën nga ko mën na laa jox xeer ci junni ëllëg mu jox la ko ci ñaari junni ñaaree day indi ak xëccoo akuk akuk werante boo demee ci istiskaar bu ibn abdul bar ci sarxul muwatta danaan la hada ma la xilaafa fiihi lil jahli bi mablagi ma yaxudu kulla yawmin bi sinrihi linqifaadi l ashaari wa irtifaaxiha ndax prix yi day yéeg ak a ñetteel bi nga xam ne dagan na it mooy nga dem ci jaaykat bi ne ko saakoob ceeb lu muy jar mooy la ñetti junni nga ne ko ñetti junne ngi nii waaye danga ma fi bàyyil saako bi bis bu set waa kër gi danañu fi ñëw natt ñaari kilo loolu dagan na moom waaw ndax jën jënd mi njaay mi jeex na dala koo teel rek loolu dagan na am na beneen façon jaay moo njëkk ci bi ci mujj mooy li wax bay oru baan danañ ko tuddee oru buun danañ ko tuddee ara mooy njaay moo xam ne ci lay jaay wala mu lay luyee danaan la danga may jox avance bu ñu demee ba ci digg bi boo dàkkooree avance bi dañ koy génne ci njëg gi boo d'accordul nag da ngay perte loolu dëgganut bu fekkee dafa ne la danga may jox avance nag boo d'accordee mu génn ci njëg yi boo d'accordul ma delloo la sa xaalis dagan na ñii la ko imaam Malik jàngale ca Mudawwana ca Muwatta sax nee na am na xadis bu ma ñi daan ne naha an bay'il urbaan yonent bi dafa tere urbaan daat koy firee ni ma ko firee mooy koo xam ne dalay luyee ak daaba wala mu lay jaay dara ne la danga may jox avance bu fekkente ne njaay mi wéy na ma dugal ko ci njëg yi bu fekkee njaay mi yooyu it ñu xàcc nii mu ko firee nag moom imaam Malik ci siskaar boobu ñu Abdul dafay wax ne nii ko imaam Malik noonu la ko fuqahaa yu amsaar yi firee ci xijaas ak iraq Shaafi yi noonu la ko gisee Sawri yi noonu la ko gisee Abu Hanifa noonu la ko gisee Awzaa yi noonu la ko gisee ak Lays ak ñeneen ak ñeneen moom li mu ko layeele daf ne ndax loolu day bokk ci bayamul xarar wal muxaatara day dugg ci njaayum naxaate boo demee ci imaam Qurtubi ci aljaami li ahkaamil Quraan fi mu firee li suñ borom di wax naan laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil daf ne dafa bokk ci la lekk alali nit ci lu jaarut ci yoon mooy avance yooyu ñuy joxe ba noppi bu njaay mi dugut ñu koy lekk bi may mujje mooy bu yuuxul ay na bu dee ci banque yi léegi dañ ko tudde tawarruq tawarruqul munazam wala tawarruqul aksi ci banque islamique yi bu yuuxul na yenn fuqaha yi dañ ko tuddee bu yuuxul aajaan moom xeetu njaay la moo xam ne boo xool kaw gi day nur lu normal waaye biir gi exploitation da cee am moom la ñuy wax léegi ci marché bi bukki yaakaar naa bukki lañ ko tuddee moom day am ci diggante koo xam ne daa bëgg xaalis léegi waaye xam ne ne bu la bu la lebee doo ko lebal ak koo xam ne moom da bëggu laa jaay wala waaye dalaa bëgg a exploité léegi nu muy demee ak lu tax ñu koy tere am na ñaari sabab yu tax ñu koy teree am ëpp na ñetti sabab sax dama ci tudd ñaari sabab rek mooy benn bi dañ naan jaay ak lépp dajee daje te jaay ak lépp fu ñu dajee njaay ma baaxut masalaan kii dafa yor ñaari téléphone ne la kaay ma jaay la ko ci ñaar fukki junni bi na ko jaayee ci ñaar fukki junni ba noppi ne la jaayaat ma benn bi ci fukki junni léegi lan mooy xew ñaari téléphone ne la kaay ma jaay la ko ci ñaar fukki junni ne la joxaat ma benn bi ma jox la fukki junni léegi lii xew mooy amee nga boru ñaar fukki junni benn téléphone nga yor te benn fukki junni nga téye mooy kon day mel ni ci biir accord bi dala cee lebal dala cee lebal ba noppi tamit jaay la ci waaw lim la ci lebal mooy fukki junni ndax moom téléphone am delluwaat na ci moom lim la jaay mooy ñaar fukki junni yi nga xam ne war nga koo fay loolu kon bayon ak salaf da cee daje kon booy xool euh, yow war ngaa fay ñaar fukki junni bu weer bi dee masalan fukki junni yi day jàkkaarloog euh, marchandise mi nga yor nii muy téléphone bi nga téye loolu am njaay la moom xam nga yeneen fukki junni yi nag leeb la ndax moom téléphone ba récupéré waat na ko bu yàgg loolu day loolu daganut ñaareel bi ñu ne bokk na ci li tax mu bañ a dagan mooy day dugg ci li ñuy tuddee salaf jarra nafaan te mooy bi ci mujj moom am na ñaari anam mooy kii dalay jaay marchandise mii ci fukki junni danaan la kaay ma jaay la téléphone bi bu weer wi deebee nga fay ma da ngeen waxante ba mu jox la téléphone bi mooy la jaayaan ma ko ci juróomi junni ma fay la léegi wala ma fay la fii ak juróomi fan avant délai fa délai bay ñëw daal waaw loolu dëgganut ndax kon booy xool fii ndax booy xool marchandise mi delluwaat na ci moom day mel ne njaay mi amut njaay mi day mel lu ñu waxanteeg lu ñu waxante ba bàyyi la rek waaye waaye lebak lebak bor moo fi am ñaareel bi mooy mu masalan mu la marchandise mi kaay ma jaay la ko junni fii ak ñaari weer nga fay ma waaye dem ba mu yàgg may la jaay ma ko ci junneeg juróomi téeméer ba ñetti weer ma soog laa fay mooy safaanu bu njëkk bi loolu it dëgganut ndax xaaida bi ci mashabu imam malik ci ni ko ibnu jusoy waxee xaaida bu am solo la wax nee na ci mashab bi li ñuy xool mooy mashabu malik yanzuru maa xaraja bi anil yadi wa daxala bihi wa yulgil wasaait mashab bi li muy xool mooy sa loxo lan moo ci dugg ak lan moo ci génn bu dee téléphone moo dugg sa loxo ba noppi sa waay fexe ba récupéré waat ko ngir jox la xaalis bu gën a néew nga koo fay lu gën a bari kon day mel ni xaalis moo dugg sa loxo jàkkaarloog xaalis boo war a fay lu ko ëpp loolu la riba lay doon xam-xam yi dañuy wax ne lépp ak garantie ak daraja ñett yi dañ koo war a def rek ngir yàlla waaye kenn sañu cee am ak fay kon ci tënk si ñam di waxtaan wi nag tënk naa ko lool ci ay tomb waaye jàpp naa ne loolu doy na sëkk ab ab ab ab dars incha allah ku ci am lu la lënt wala loo ci bëgg laaj boo ko jotlee mbokk yi danañ ko boole ci jotaayu gàggantiku yi incha allah maa ngi jégaluwaat bu baax a baax di wan ne kon njaay la ñeent yooyu daanaka mooy tax mu araam mu am exploitation wala riba walla riche wala bokk ak rënk am ci booy seetlu tamit jaay ak jënd toujours dañuy xool dañ ciy xool yéene kiy jaay ak yéene kiy jënd ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégluwaat bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf al ustaaz sëriñ Abdul Qadir Bousso alxaaji Cheikhu ci bind bu am solo bi nga xam ne jàng nañ ko ni ma ko waxee woon ci njëlbeen jotaay yi ñetti xaaj la xaajub tey bii ñu doon def ci jotaay yi ñu baaxoo amal mooy jàngale moom tey daa tànn dañoo tànn benn xaaj. ci biir bunt wala chapitre bi ñuy woowee jënd ak jaay ci sharian tànn ca ab ab bunt ab pàcc boo xamante ne mooy xeeti jaay ak jënd yi nga xamante ne dañ koy tere loolu nag day mel ne bi mu ko waxtaanee ba noppi ñun ñëpp jariñu nañ ci ndax ñun ñi fi nekk ñëpp loolu dañoo tënk benn ay jaaykat lañ wala ay jëndkat lañ kiy jaay moom wax nañ ko nan la war a jaayee ak nan lay jaayee ngir mu daggan ci sharia kiy jënd itam wax nañ ko moom nan la war a jëndee ngir loolu mu jënd bu ko jëf bu ko jëfandikoo lislaam bañ ko jënd rek benn daal ñaar ñii lañ doon waxal te ñun ñii fi nekk ñëpp kenn génnu ci ñi ñuy topp itam kenn génnu ci kon nit ki dafa war a li li jiitaloon ci njëlbeen mooy julit bi wala mu mu gën a yaatu murit bi ma gën koo tënk Sëñ Tuubaa da ko wax ne ko sañoo def lenn ci sa dund gi lu dul ne dangaa xam lan la ci yàlla àtte loolu sañoo ko yow ginnaaw sañoo def lenn loo xamante ne xamoo lu ca diine atte nag tey mënoo mucc ci ñaar ñi benn ngay jaay wala ngay jënd kon da war a xam yow li ngay def lan la ca lislaam atte loolu moo tax ñàkk gee xam wala umpule gi moom kenn sañu ko ndax ku xamul da nga koo war a da nga koo war a laaj li si misaako doon wax man ku xamul laajul ku xam xaw ma layam mooy aw lay amut faw da war a xam wala nga laaj ku xam ngir la ngay jëf bañ a dugg ci ak lënt bu ñu tënkee waxtaan wi da ngay gis ne lim doon waxtaane mooy ay atte wala ay jëflante ci jënd ak jaay yu ñu tere kon kiy jaay am na dana ci gis boppam kiy jënd naka noonu jàppal ne lépp loo xamante ne génnewuñ ko ci lu araam dafa dagan loolu sax boo xoolee ci suñu règlement wala loi yi ñuy jëflante ñun dañ naan tout sa qui n'est pas interdit est mi maam lépp loo xamante ne terewuñ ko rek dañ koo dañ koo daganal loolu mooy loolu mooy loolu lay sariya sariya wax al aslu fil ashyaa'i al ibaha wala beneen tëggiin bi ko Sëriñ Abdou Khadre tëggee ci biir ci biir waxtaan wi kon jàppal ne lépp luñ terewul rek jaay ko wala jënd ko dagan na jëflante ja lépp loo xamante ne dafa xaraamoon ci cosaan jaay ko dafa araam jënd ko itam noonu dañ koy tere ku ko def daane yàlla mën naa tegu ci sa kaw bépp jëflante ci wàllu njaay boo xamante ne jëflante bu leerul la maanaam ak lënt am na ci boobu dafa aram dañ koo tere dañoo tere ki koy jaay mu jëf ko tere ki koy jënd itam mu jëflante ca bépp jaay boo xamante ne ak wor da caa am wor da caa am moo xam kiy jaay moo mooy wore wala kiy jënd mooy mooy wore ñaar yëpp mën naa nekk lool bépp jëflante boo xam ne demee ne noonu araam na ci kii ki xam wor gi ki xam wor gi dina ci biir kooka jënd ga araam na ci moom wala jaay comme koy jaay te xam ko araam na ci moom bépp jaay boo xamante ne ak naxante da am ak naxe am mooy kiy jaay yow da ngay nax ki ngay jaay wala kiy jaay da kiy jënd dalaa nax ñaar yooyu tamit dañ koy tere bépp jaay wala jënd boo xam ne ak noggatu am na ci mooy bu ñu wax jaay ak jënd la wax kiy jaay wala kiy jënd bépp woo xamante ne yow dangay jaay di noggatu ki ngay jaay wala ngay jënd di noggatu ci ki ngay jëndee xamal ne jaay booba xamal ne jëflante booba dafa xaram dañ koo dañ koo tere bépp jaay boo xamante ne ak ñàkk wóor am na ci mooy confiance mooy kiy jënd wóoluwut amut ak kóolute ci li muy jënd wala kiy jaay amul lu ko wóor ci ne li muy jaay mën na koo jébbale booba tamit dañ koy dañ koy tere lii nag ngir ñu mën cee mucc ñun li Sëñ Abdou Khadre waxoon ci njëlbeen da ci am solo mooy wut ay contrôleur ay mooy nu ñoo muxtasib koo xamante ne day ne ci biir marché bi xam li ñuy jaay li ñuy jëflante li ñuy tere ku jëflante jëflante bu baaxul mu yee la ca bu jaree waar mu waar la ne lii ngay def ci sharia buñ ko tënkee ci diine dafa def nii dafa def nii dafa def nii loola lu baaxoon la te junj na ne amoon na ci marché yu njëkkee nga xamante ne ay kilifa kilifay lislaam dañoo amoon yilifoon nit ñëpp di di lijjanti seenu jëflante ci wàll gépp dañ daan wut sàkk ay nit ñoo xam dañ dem ci marché ba di jëflante ci ñoom ca loola kon ñi nga xamante ne dañuy jaay nekk ay commerçant ak ñi nga xamante ne dañuy ay jëndkat nekk ay consommateur kenn ku nekk am na wàll ci waxtaan wi ñu doon waxtaan te war na ci yow bàyyi xel bu baax a baax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne man yuridullahu bihi xayran yufaqihu fi diin koo xamante ne yàlla daa namm ca moom mu nekk koo xamante ne ku bëri tuyaaba lay nekk day fexe ba la muy jëflante mu xam ca lam ca war a xam mooy kiy jënd xam li muy jënd ak ni muy jëflante ndax dagan na wala dëgganul kiy jaay tamit dafa war a xam li mu jaay ak li muy jën li muy jaay ndax dagan na ni mu koy jaayee ndax ana miinu njaay yiin wuñ nangu la ci diine ñaar yooyu yëpp daa mënta ñàkk moo tax bu ñu jàpp ne waxtaan wi commercant yi rek ñoo ko moom dëgg la am nañ ci wàll wu rëy waaye ñiy jënd itam am nañ ci wàll wu ndax jënd lu dëgganut day tax na nga koy jëf na koy jëfandikoo du baax eh, kon sëñ bi xaadir waxtaan wi leer na nañ buñ ci buñ buñ duggee ci jéem koo leeralaat wala tënk ko sax mën naa ak lëndamal te leeral lu lu lu leer ba nopp moom ak lëntal la ñu ngi jégalu bu baax a baax di leen bàyyi loo xel ne ni mu ko waxee ci mujjantal lépp loo xamante ne dégg ngeen ko ci mu nekk loo xamante ne bëgg ngeen ci yeneen leeral man ngeen a yónnee laaj ba ngeen cay laaj ci numéro bii 78 689 28 28 wala ngeen jaar ci suñu plateforme yi moo xam Facebook wala yi nga xamante ne dañ fay yo yo yónnee dañ fay jàllale waxtaan wi ñu ngi ko doon jàllale ci MK TV suba waxtaan wi ñuy waxtaanee incha allah mooy jotaay bi. jàppale ne benn ci conférence yi lay doon mooy tam boo xam dañ koy gëstu mu nekk muy laal waa société bi mooy ni ñu dundee ñu def ci ab jàngat def ci ab taxaw seetlu wax ci nan lañ ci war a taxawee suba ñu ngi waxtaanee njàngum jigéen ñi lan mooy jubluwaay yi ak yan jeexital la mën a am insha allah taala bu ngeen ko teew la dana nekk tom bu am solo mooy taalimul mar'ati maqasidun wa athar wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu